di bis bu rëy ci lislaam taxawaayu arafa bisu arafa di bis bu rëy ci lislaam bis boo xam ne tey jii ma nga daan fekk aw gaay ca arafa ñu armal woddub sir sàngub sir walla woddub sarbit sàngub sarbit fas yéenee yendu arafa ci dikr ci ñaan ci def lu baax taxawaayu arafa di bés bu rëy sallallahu alayhi wa sallam ko jëmmal ko taxawam ba mu fa taxawoon ba léegi jamono di ko fàttaliku ñëw arafa ba ca masjidu namira ak tànt bañ ko tàntal fañ ko tàntal ak gëléem gaak àndandoo ya dugg arafa dugg arafa yendu fa kendalam la liggéey fa liggéey bu rëy ba ñaan fa ñaan yu jotale ya sallallahu alayhi wa sallam xamul lu ko xeet wi fayee xanaa bëgg kook topp ko rek ma lu ko xeet wi faye xanaa bëgg kook topp ko rek ala kulli xaal kon tey la arafa nun ak yéen nun ñépp naan ko woor xataa ñi nga xam ne fanaanoowuñ woon yéene fanaanoowuñ woon yéene bu fekkee lekk gu ñu mën nañoo woor waaw six heures li ci tege bariwul bu fekkee lekk goo dara mën ngaa woor arafa xam naa su ma waxatee la ma waxoon ci jamono yaayi Maodo di sànn meer soxna Jóob allahu akbar yonent bi dafa am lu mu waxoon benn saaba ne ko diw ma muyu ko mu ne ko dama la bëgg soo jullee tee waxal nangam ak nangam ca waxtaanu fajaroo ma ne leen yéen ñi may déglu ñépp ci biir réew mi ak bitim réew ak fa ngeen man di nekk dama leen a bëgg rekk yaay Maodo daal di xam ndeysaan xabar ci koccalal ba daal di wayu Saalim Sàll bëgg na ma waay ngeen baal ma ci misaal moomu waaye man daal loola ma waxoon keroog ca jamono yaay Maodo moom laay waxaat nii waaw dama leen a bëgg bëgg googu nag tax na lépp lu ma for ci lu baax walla mag ñi wax ne lu baax la walla alxuraan joxoñ ko mbaam muy njàngaleem yonent bi su ma sañoon indi ko ci pénc mii indi ko ci mikoro bi indi ko ci studio bii nu bokk ko partagé maag yéen dama leen bëgg dama leen bëgg yéen ñëpp <laughs> maa ngi ñaan yàlla yàlla bu ma bañ kenn ci yéen sàllaw ndeysaan léeg-léeg ñu envoyé ma benn audio wala vidéo buy wax wax ju jëm ci xëy na suñuy waxtaan maa ngi leen di xamal ne audio yooyu duma ko déglu mukk ndax bëgguma leen a bañ te koy déglu muy wax ci yow léegi tey nga bañ ko wala nga wàññi li nga ko bëggee woon te loolu baaxul cib jullit moo tax duma déglu waaw maa ngi jégglu ci ñi ma koy envoyé itam nag waaw nett léegi maa ngi ciy jégglu diw nee na la nangam it maa ngi ciy jégglu ndax yéen ñëpp laa bëgg yàlla xam ne ko te bëgguma leen a bañ te kuy déglu audio def ci yow léegi tey ki koy def ci yow mu am lu mu def ci sab xol te loolu baaxul yi was wisu rek la lay jural waaw moo tax audio yi ma di ko moytu <laughs> ndeysaan vidéo yi ma di lu ci waay wax baal naa la lu ci waay wax rek baal naa la yàlla xam na ko yàlla bu nu yàlla natoo mukk nuy fayu wala nu wala nuy tontu yàlla bu nu ko yàlla natoo waaw yàlla bu nu ko yàlla natoo ndax dañoo am ci réew mi ay mag mag ñoo xam ne buñ doon tonton te nëg ni ñu leen nettalil seeni xeex ak seeni xare waaw tabarkàlla afawtu anil aadaa yi dégg nañ ko afawtu anil aadaa te ba muy wax al aada jubluwu ci woon jullit yi déedéet al aada mooy ña ko doon jéem a sànki asiru mal abraari ba mu ne afawtu anil aada kuy jëggal say noon say dëkkandoog say bokk waxi noppi loolu menn maam la ci sunu maam yi mu ngi ci penc mi nan ko roy ci moom afuutu anil ahada <laughs> dégg maam Cheikh Alxaaji Malik radiyallahu taala anhu ca ca soxna sa lakkale woon ak fa mujj suñ móor si moo ko doon nettali waaw ca Koungheul yàlla na ko gi am na nag ma bëgg leen a baaxe baaxe sama bopp waaw lu am solo mooy lan koor yi nu sopp daf caa am koor gu tudd mu arafa li la xaaj dafa am koor gu ñu tuddee bésu arafa mu tombeek tey di alxemes àdduna si yëpp képp koo xam ni fekku la arafa nga woor ko dañ koo sopp bisu arafa mooy bisu juróom-ñeenteel ci weeru aj wala weeru tabaski ni ko wolof di waxe sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon ci ñun dafa wax ne sawmu yawmi arafa yukaffiru zunuba sanatayni maadiya wa mustaqbala si nee na woor bisu arafa day far bàkkaaru ñaari at hmm? waaw day far bàkkaaru ñaari at ñaar fukki weer ak ñeent bàkkaar yépp yàlla faral la ko allahu akbar loolu de su ma sañoon yéen ñi déglu ñépp ak man mii di wax ak képp ku wax ji àgg ca moom su ma sañoon may dey ñu bokk ñun ñépp ci yàllay faral bàkkaaru ñaar fukki weer ak ñeent vingt quatre mois ah waaw waaw loolu loolu ëpp naa xeet moo tax nan ànd nun ñépp nu woor ko ndaw ko ndaay tabarkàlla góor góor lu woor ko <laughs> nogo yi sax na ko woor waaw nogo yi waaw na ñépp woor yow mu arafa mbokk yi mu am lu ci am solo mooy ki dégg wax jii su wooree <laughs> su wooree moom day am tuyaa bay woor mer tàppasi bi waaye ba noppi may kii wax nii tuyaa bay woor plus kooram te du wàññi ci koor yi dara kon par exemple euh, bu fekkee ñi ma wax ñépp ku déglu ñoom maam xewe njaay ak ñi may déglu ñoom dooru si la fële ca Paris ñu ànd ñun yëpp woor ko bi nga ko wooree am na lu baree bari loo defal eh, ki nga xam ne moo ne nan ko woor nga ne ay ca te ne ca tuyaaba la juree yàlla nan ko muurloo ngeen muurloo ko pinc mi yëpp muurloo ko waaw xam naa door incha allah dana bokk ci ñuy woor waaw ak ñoom Pam Ndiogog ñëpp rek waaw awma sañ-sañu joxe ndigal nag parce que euh, dumab sëriñ waaw dumab sëriñ sëriñ si ñoom xam nañ li may li ma wax ñun ay ustaas lañu daxala dugg na xaraja génn na ñun daa am fa suñ daxala di yem ak suñu xaraja duñu ay sëriñ waaw moo tax nga dégg ñu naan ustaas diw waaye duñu wax sëriñ diw sëriñ si ñeneen lañu mbokk yi kon nu war a arafa yàlla noonu yàlla nangul nangul leen waaw koo ci xam ne dégg na euh, jataay bii fekk lekk gut te yaakaaruma heure bi ay onze heures xaw ma six heures onze ak six heures douze yaakaaruma ne nit ñi ndekkee gum nañ am na koo xam ne ki ne moom xam naa ne moom fu mu jógee jàkk jën ndékki te yaakaaruma nag ndex ndékki na biir waaye moom fu mu jógee ci jàkk ji rek ndékki parce que nee nañu ndékki lu teel moo gën ndékki lu naaj mbokk yi ma delsu ci bunt bi ma nekkoon te mooy buntub julli gi iid gi ëllëg ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ndax ren danoo am xéewal gurëy mooy xéewalu tabaskiyandoo waaw danoo am xéewal gu euh, te mooy xéewalug tabaskiyandoo tabarkalla Eh, ma nekkoon ci tomb jullig iid gi waaw ma nekkoon ci tomb jullig iid gi waaw imaam tolloon ci jàng alfaatiha ba jeexal alfaatiha imaam teg ca sabisma rabbikal aala ndax am na ilimaan yoo xam ne moom lañ cay teg imaam teg ca sa bisma rabbikal aala ndax am na ñoo xam ne moom lañ cay teg waaw biral ko nag waaw biral ko biral ko mooy jàng ko ca kaw ñépp yi dégg bu ëllëgee incha allah am na imaam yoo xam ne buñ jàngee alfaati ba mu jeex sa bisma rabbikal aala lañ cay teg am nañ ciy teg yeneen saar nag wax dëgg yàlla wala weneen saar waaw sa bisma rabbika ala wenn saar la woo xam ne ñii safa wiitar moom lañuy jàng ginnaaw faatiha ci ràkkaa bu njëkk bi sa bisma rabbika ala lañ cay teg ña nga xam ne ñooy safa wiitar te safa wiitar dafa am solo lool télévision yaa ngi koy bëgg yàq nag ci péncum jullit yi ndax télévision yi léegi heure ba nga daan jullit gee safa wiitar dem tëddi heure boobu léegi télévision daf koy jéem a jël indil la ci ay théâtre yu amul xorom wala théâtre yooyu yàq jikko walla théâtre yuy këf am xel walla théâtre yooyu sànq temps sallallahu alayhi wa sallam ñu lu wuutu théâtre yooyu mooy nga julli gee ñeenti rakka tofal ca ñaari rakka mbaa ñeent dikk say loxo sa borom yaa rabbi sama njaboot gi yaa rabbi sama waajur wa génn àdduna yaa rabbi sama waajur wu góor wa yaa rabbi sama goro bi yaa bi sama wujj wi <laughs> te xam naa pénc mi ci ñaanal seen wujj bari wut waaye daal yaa bi sama wujj wi yaa rabbi sunu feebar bii ci penc mi yaa rabbi sunu njiit yi yaa rabbi yaa rabbi rekk tabarkalla ba àgg ci yaa bi suñu ustaas bi ndeysaan <laughs> yaa rabbi yaa rabbi ah jabbutu ba doyal taf la ci say loxo raay ci saxar kanam daal di jóg nag daal di julli safaa daal julli witr dem ca salal tëdd gis nga lii jullit bi koy def chaque jour mu def ko ku jëfee dafa am jeexantal yu loolu di def ci moom ak saar wi may bëgg a may bëgg jàng moo tax bu ñuy safaa wetar ñu di ko jàng dara mënu ko cee wuutu su fekkee mokkal nga ko sa bisma rabbikal aala allahu akbar hmm? waaw waaw tabarkalla lu ama am solo la kon suñu julee tee gee tekki su ñaar ràkk wala suñu ñeenti rakk nañ fay télévision yi jamono ñëwoon na joo xam ne tele su minu jotee dañuy fay télé yëpp fay rajo yëpp sakkanal énergie sakkanal temps beeg ñoom seen yooyu waaye dara la ca la ñuy nekk rek daxala dugg na xurju xurju xurju xurju su ko defee boo ko toppee doo nelaw fi ne nelaw yi ni manqué ci dëkk bi tax na dëkk bi nit ñi seen xol yi ni mel milu milu ko woon manqué nelaw baaxut te télé yeeg rajo yi fi na ñu wàññi nelaw yi nit ñi nelaw yi wàññiku yooyu tax na euh, xol yi xol yi xaw xat waa la ko wax de nit de teel a nelaw vingt fu mu jot nañu tëri <laughs> walla vingt une heure bu yeexee ba yeex ñu julli gee teg cey rakka ñaan suñuy ñaan safa wétar te tëdd waaw sëñ Babacar Si day radiallahu taala anhu sëñ Babacar Si la sëriñ Cheikh waxoon abona abu bikrin wa in kaana fil qabri abona abu bakrin wa in kaana fil qabri ha radina bihi cheikhan ila axiri dahri ndeysaan ila axiri dahri ndeysaan mu ne nangu naa mu nekk sama sëriñ te bëgg naa ci mu nekk sama sëriñ waaw ba sunu fan yu mujj waaw nu xëy fekki ko tëdd ak moom mu continuer nekk sunu sëriñ ctt allahu akbar abuna abu bakrin wa in kaana fi lxabri abu bakar su sëñ si moom moo daan wax ne dee leen teel a tër si ndax ngeen fekki léemu gi <laughs> ah ne dee a tër ndax ngeen fekki léemu ki fekk ak léemam la mën a assuré ci allahu akbar mbokk yi wax ju rëy nga noonu dee leen teel a tër ndax ngeen fekke léemu gi Babacar ñi fekke léemu gi la mën a assuré waaye jékki bañ léemu ba noppi nga door a yolli ko tër si <laughs> xamul ci yow dara kon teel a tëdd baax na mbokk yi bi imaam jeexale alfaate daf caa teg sabis ma rabbikal aala sabbih fiilu ndigal la fiilu amr fiilu ndigal la impératif la xaw ma nu ngeen ko tuddee professeur ji bi sabbix hmm, waaw waaw sabbix mooy sabbaalal sabbisma rabbikal aala sabbaalal sa sa njaati gi li nga xam ne njaati gi loo am njaati gi li moo ko féete kaw rabbikal aala hmm, waaw waaw su njaati ga loolu li fi nekk moo ko bind te lim bind daf leen ay yamale xam nga nit bu tànk yi sutante woon mu soox bu loxo yi sutante woon naqare xool bu bët ya ëppante woon naqare xool tuñ yi bu ëppante woon nopp yu noonu paxi bakkan yu noonu baaraam yi noonu bu ëppantee rek la xalaxa fa sawwa allahu akbar moo tax ci suratu al infitar sunu borom wax ci lu daw yaram yaa ayyuhal insaan maa xarraka bi rabbikal karim ndeysaan waaw mu ko suñ mbàkk si rek ndeysaan mu xëm yàlla na ko yàlla yokk wér yaa ayyuhal insaan maa xarraka bi rabbikal karim di san sunu borom ni nit lu tax ngay nangu ñu récupérer ci samay loxo waaw waaw yaa ayyuhal insaan maa xarraka bi rabbikal karim lu tax ngay nangu ñu lay récupérer ci samay loxo allasi xalaxak fa sawaaka fa adalak fii ay surati ma shaa rakabak ndeysaan xanaa yaram war naa daw waaw yàlla nee na am na ci jaamu ñoo xam ne wóor na leen ne récupéré nañ leen di leen xëyloo fu mu bëggut di leen gontaloo fu bëggut di leen def loolu luñ bëggut di leen wax loolu luñ bëggut yaa yool insaan maa xarraka bi rabbikal karim chetttt waaw sa bism rabbikal aala alladi xalaqa fa sawwa wala si qaddara fa hada qaddara fa hada moo natt moo natt gis nga bu ñu la wanee ngay benn vidéo wan la ci cosaanal nit wan la ci cosaanal nit kero boo joxoon yàlla juróom fukk kero nga ko jox téeméer xaddara fahada ndax ndox moomu yàlla di sàkki nit dafa am ay wallaxnjaan yu ci nekk fanweeri euh, fanweeri million ak ñetti million dana ko mat 33 million wallax njaan te wallax njaan yooyu benn ci nekk nit ci des yëpp ñu sàkkal leen pexe te benn boobu benn nen lay lay seeti te nen ba bët mënu koo gis te wallax njaan yi mën na koo gis ma ngi koy gis ci biiru jigéen waaw ak fam koy fekk allahu akbar wallax njaan yi départ départ Dakar ilaa Thiès Thiès la wallax njaan wa euh, la nen ba nekk Albuwayda Thiès la nekk waaw wallax njaan yi départ Dakar waaw am na ci yoo xam ne du ñu àgg kër Mbay Fall am na ci yoo xam ne duñ weesu barab sàngam ñoog ñoom ba lu baree bari 3 millions wala lu ko jege ñoom ñooy àgg Thiès 33 millions yëpp des ci yoon wi xa ëllëg si euh, euh, xalaqa fa xaddara fa hada kon waaw xaddara fa hada tt xam naa bis bu euh, télévision bi ñëwee Sud FM TV su fekkee noonu lañ koy waxee Eh, tabarkàlla ba ba nu seetaan ko ñun ñëpp ay xam ne xaddara fa hada moo tax jox sa boroom sa bopp jox sa bopp sa boroom hmm, jot na sëkk wala si axarjal mara hmm, waaw waaw yàlla mu ne eh, Ismaayla Sow war naa mën a waaru moo Sàmba Dadal Ismaayla Sow yal na ko yàlla yokk wér war naa mën a waaru moo sàmba dadal waaw ak ministre bi yor wàllu élevage waaw sàmba luy loolu yàlla dafa bind nit ba noppi bind ba noppi génne almaraa waaw bu bu boo xëyee jiital xar yeeg nag yeeg bëy yi walla ak gëléem yi yóbbu ca tool ya walla yóbbu ca àll ba loola fa xar nag yeeg bëy yi lekk sunu borom ne maa ko génne hmm? waaw waaw maa ko génne ndax ñaari yëf jur gi lekk ci ma waar leen ci jur gi lekk ci ma waar leen ci waaw fa ja'alu xusaan ahwa sa nuqri uka fala tansa bëgg naa laa jàngal nag loolu dul fàtteeti sa nuquri ko falaatan saa ki ki mën a jàngale it nekk pédagogue na sunu wajur wa xaaji abbas sàll rahmatullahi alayhi wa radi anhu waaw góor gu pédagogue ku mën a jàngale mooy kii jàngale leçon bu tuuti waaw leçon bu tuuti waaye te am xorom nag <laughs> ndax am na ñoo xam ni ni ni nekkuñu pédagogue njàngale mu xoromu daf leen di déranger waaw <laughs> am na ñoo xam ne njàngale ma mu def leen di déranger waaye sunu mag ñi xam njàngale ma mu ñoo fi indiwoon wasalliyan yaa ilaahi ak muwaay boog ñoom seen yooyu waaw ma wax la ko tey loolu la tubaab di wax humeur waaw wolof di ko wax njàngale ma xoromu waaw xorom su ëpp nag baaxul ci cin waaye xorom su mànq yi baaxul ci cin mbokk yi <laughs> jërë ngeen jëf tey la tey la arafa bu leen ko fàttee woor buñ ko fatte woor sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ni ni taxaw seen seeni kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar tuwaa firiñ fàncal ko ci wolof yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def ci sunuy poos dara wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa